seytaane bu nëbbee dara nga nar koo feeñal day tàkk day tàkk day tàkk ci sa kaw xam nga ne awma personne awma a problème ak buubu ngaar yi wala n'importe quel nit mhm. awma kenn euh, personnellement awma ak benn problème ci ñoom mhm. mais système bi ñu amal système mu dajaal boobu laa amal problème dëgg la système mu seytaane boobu nga xam ni ay système mu yahoot la mhm. ay juive ñoo leen préparé ñoo leen defar ñoom ñi dund ñi xamuñ ci dara nag ñoom ñi nekk nii di wax nii di telli telli xamuñu ci dara dara dara ci loolu xamuñu lu dañuy jëg rek ibnu diw neena na ibnu diw nee hadith hadis mi weer bi weerut nosal baat mais xamuñu le xew mais lolu ay système yo xam yag na ça fait presque plus de 1000 ans bu ko seytaane di monter mas naa ci def waxtaan dina ci dellu si maanaam j'aime bien li ñuy def parce que moy tax may wax dama bëgg na ñëw non la nexé parce que ñom ñu ñu lay attaquer ça me fait plaisir non la ko bëggé légui ñom daf may permettre ma gëna mëna exprimer li ñu nëbb te dinaa leeral ci bopp sénégalais yi nit ñëpp ba mu leer naññ ni lii système mu seytaane la. ay dajal lañu ay dajal lañu système bi yahud yi defar ko xam nga wax naa ci. ni leen tuba yu cëkk yooyu ngay gis foo koy gis. ci juif yi ak rabbin yi ak yahud yi. ak façon mbaxane yi. façon sikkim yi bala ngaa agsi ci mbaxane yi sikkim boobu jóge ci rabbin yi ak juif yi ak yahud mm-hmm. koppat yu weex yooyu ñen ngay gis ñu koy sol. loolu kenn dofaali wu ko xanaa ah, juif yi ngeen koy gis ñu koy sol yahud yi. Mm-hmm. méthode boobu lañ jël moom lañ leen jox culture ñooñu lañ yoree. lii si ñu ngi topp ñu ko formé a juif lañ ba pare ba beneen bi bañ gi ñuy bañ rasulullahi sala mas naa dégg ci ñoom kuy tudd naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Muhammad la ñu Muhammad waaw ngir yàlla non am loo xam ne njaga darul dof dof lu ku mu neex nga dof nekk sa bopp bi am siir mi ngi ci mhm. di nga seetlu xam nga am nga xel dofoo di nga seetlu ndax mas ngaa dégg ñoom ñu naan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ko jox importance man de mosuma ko dégg Muhammad dañuy wàññi sax xaqiqatu Muhammad yi waaw Muhammad mooy duñ ko bëgg a ñàkkal fayda dañ ko bëgg a suufeel

du ñu leen seetaan ala kulli xaal ñu fiy prospère dinañ leen dévoilé feeñal ko ba mu leer nañ te loolu dinaa si ñëw ba mu leer nañ ba at bépp xam ni lii la ku mu neex nag fali lay xam ne ko topp leen ku mu neex nga nekk nit waaye yéen ñi leen topp ñu ca bëgg a doon ay jullit ñu bëgg a nite ñu bëgg a nite danañ génn ca loolu ñu nekk ci ci jaahiliya googu ñëw ci diine lislaam boo ko mul nga sax ci bala ngaa génn àdduna sa iman dem Mm-hmm. te li ma la wax ni man xam naa ko répété naa ko junni yoon mm-hmm. te xam naa ne yow moom pare boo ko bàyyi façon ji laa ilaha illallah te xam naa tamit euh, ñoom war nañoo xam ni doo ko ragal ah je të të të man xam dëggool dama la ñoom maanaam guerre bi ma bëgg ñoom duñ ko def parce que man xam naa jarul leen lu bari mm-hmm. jarul leen bakkan jarul leen dara man xam naa loolu seen bakkan dañoo bëgg seen bakkan dañoo ragal jarul leen dara te man awma lu may ragal awma lu may tiit awma lu may xof man mu tànk dina métti wala bëgg nañ ko xam donc xal njaga loolu mais naa ñëw si ñoom loolu dinañ si ñëw incha allah wala damay parce que damay dañ ma bu ñuy ñu bañ suñu dem dem ci suñu jàngale nañ dem ci suñu nangam nangam moo tax xam na ni ma ma ma bëgg leen def pause mais nag mais nag ci mu am ay set waaw pour xale yi nekk sa ginnaaw mën a da ngay sempi pakk yi effectivement bañ mën a nga bay parce que suñu mag ñi fi jaar dañoo mi exactement ataawa biqaau suudi zulmun wa zulmatun wallahi wallahi fa jaahad fa xaama bi sayfi la xam ni ak mujradi fa jaahad fiiha bi siyaasati wa nada wa ilmin wa xilmin fahtada kulla mu'tadi Cheikh El Hadj Malick loolu loolu doxal ci réew ba réussir Cheikh Ahmad Bamba loolu tax mu joxe boppam mag ñi ñëpp joxe seen bopp kon yaakaar naa ni eh, yow doo mujjee pusa mu réer déedéet macha allahu taala ko mujjee léegi ña leen di tontu mhm. ñooñu dëgg dëgg ñoom ñooy wax ak ñoom parce que ñooñu xam nga sëriñ si waax si ñu yàlla dénk dañoo am yoo xam ne ñoom amuñu ko ñoom dañoo am honnêteté intellectuelle uh-huh. te ñi amuñu honnêteté intellectuelle uh-huh. maanaam ñoom bu ñu doon wax ak yow nga wax li nga wax jubul sax dañ lay comprendre ni la wax nga dëgg waaye nag maanaam dañuy honnête te ñii ñoom pour ñoom àddi lépp wërante ndomba la wax ba yaayante tegante ay corde ki buum lëjë yooyu la ñuy joué c'est jeu machiavélique moom la ñuy joué donc du ñooñu ñooy wax ñoom parce que mënuñu waxtaan. dëgg dëgg dëgg dafa mel ni ab yonent bëgg a waxtaan ak seytaane day jafe. day jafe day compliqué donc mënuñu communiquer ak ñoom. mais man nañoo communiquer ak man ma jaam faal mi nga xam ne du juróomi dërëm. mën naa waxtaan ak a baax <laughs> mu gën a yaatu macha allah.